جوت وجهي لمن تكريم بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريم بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لله شكري في فعل الخير ممن لا شريك له بالملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نعمة ربنا في البر والبر نعم الله مولانا كمن بكل يمين اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فالتهمني العام يا سمدي لي هللا موسعا بعدما ظننت عريانا ناديتك اليوم يا من أمس كرمني وزرت لليوم إيمانا وبرهانا إذ قلوبا نزارا

bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala nabiyi alkarim sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi zawi ridwaani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki talibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen ziar ci turu kilifa jataay bi sëriñ Ahmadou Mbacké nekk ci njaboot boppu njabootuk sëñ Modou Khary gépp ñu ñaan suñu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram ñuy yëkkati ab ziar ci jiital nag kilifa yoon wi Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan suñu borom wannu kiimaanu gudd fan ci jëmmam di ziar bu baax kilifa barab bi di sëñ Ahmadul Mokhtar ñu nekk ci bopp njabootuk ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ñuy ñaanal ñëpp yërmande suñu borom ak njëgalam barkib sëñ Tuubaa nu daje fii tey ci daarul xidma di pàkk bu tedd di pàkk jaamu yàlla doon it pàkkum ndigal sunu fi dajee sunu xel faaw mu dem ci borom pàkk bi mooy sëñ Modou Khary mi nga xamante ne nii moom la suñu borom dogaloon mu dëkkee barab bi doon fi jaamu yàlla di fi liggéeyal sëñ Tuubaa ci bindéef yi bis bi itam di bis boo xamante ne nii bisu fàttaliku la njaboot gépp daje ñaan suñu borom yokk ay leeram foofee ci barsaqul muhammadiya ak mboolem bokk ya fa nekk yëpp di ñaanal itam ñi fi des njëggalu yàlla gu sax dàkk te ñaan jàmm itam ci réew mi ci njiital sëriñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi ñaan suñu borom mu guddal aw fanam te wéral ay cëram te mott li yéeneem li ko mag ñi dénk mu di ko sàmm yàlla na ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ña doon mébét barakat Cheikhul Khadim mag ñi nag ko sa xel dem ci ñoom faw nga am loo fàttaliku ndax fàttaliku leen dana yokk pastéef fàttaliku leen dana yokk yitte fàttaliku leen dana yokk ak cofeel ci sëriñ bi dana tax itam sa sa njot gën a rafet dana tax itam sa yaakaar gëna a dëgër te it nu amee leen bor nag ci yu ñu dajee di leen fàttaliku sunu wéetee di leen ñaanal ndax yàlla daa dogal ñu yor seen deret pare dëkke seenub gent di tedd ci seen barke di sagu ci seenub liggéey ndax lii fi nekk lépp noonu xam na ne suñu indiwu ko fi njàmbaarug mag ñi rekk la kon waree su leen a fàtte ci ñaan waras na leen di fàttali itam seen jikko yu rafet yooyu nga xamante ne ni moom la leen suñu boroom joxoon ñu laxasaayoo ko gànnaayoo ko ba suñu boroom dogal ñu delluwaat ci yërmande yàlla te dara ñaawut moom nag bokk na ci ñi nga xamante ne ni bokk na ak sëriñ bi ci wàllu deret loolu la suñ borom dogal ak bokk yàllaa koy def suñ borom moo tànn ñi ko neex boole leen waaye teewul rafetal na bokk la waaye mu jaay ko jënde ko ak taalibe laxasaayu ànd ak sëriñ bi ba bokk ci ñi nga xamante ne nii bokk ci sant wi taxul ñu mel ni ñu mel da koo jëf mooy jaayante ak sëriñ bi ànd ak moom ci barab yu bare bari yu fasantikoo di wut ngërëmal yàlla ba sum borom dogal sëriñ bi soppiku ndigal ànd ak sëñ bi itam ci ak njëlbeen nga xamante ne ni njëlbéen gi moom ku ko gëstu tuuti ci yoon wi xam ne neexut njëlbéen gi neexu ndax mag ñi daj nañ lu ne ci coono bokk itam ci ñi nga xamante ne ni demoon nañ gànnaar gànnaar itam di barab boo xamante ne ni benn la ci étape yi nga xamante ne ni sëriñ bi jaar na fa bokk itam ci ñuy jaar ci yéen te yooyu mooy mooy barab yi nga xamante ne ni barab yu tar la yoo xam ne mag ñi dund nañ ci coono yoo xamante ne ni eh, duñ ko nettali waaye ca ngay xamee seen paspas pas ca ngay xamee seen yitte ju kawe ca ngay xamee seen bëgg Sëñ waa goo xam ne dara raxu ca ngay xamee itam ni. lu ñu mën a am ci teraanga ci àdduna loolu jombu leen luñ leen di dikk ci ëllëg itam da xam ne loola daa tolloo xelum doomu aadama ñu di ko ci natt waaye ëpp na ko ndax gànnaar ku ne xam na ni réewum tumuranke la réew la itam moo xamante ni nii jamono ya fa sëñ bi nekk nekk ga yombut damay wax ni ba fii nu toll nii nii nii jamono ji nuy waxee nii fa sëriñ bi nekkoon ci gànnaar maanaam dëkk ba fa gën a jege juróom fukki kilomètre la boo fa demee ba fi mu toll nii ña fa suñ borom dogaloon seenu bakkan des fa ñu rob leen fa ñoom la fa seeni barab ne waaye dara nekku fa luy yëngu lu dul ni bis bañ koy fàttaliku rek la fa nit ñi daje fàttaliku sarsaara kenn ku ne delluwaat ci sa yitte kon barab la boo xamante ne ni ba léegi neexu ko kon da ngay xool ca gannaaw booba bañ fay nekk mu doon jamono yoo xamante ne nii jamono yu tara tar la yoo xam ne lekk yombut dem fa itam yombut nga gisoon ni mag ñi amuñu woon ay waruwaay waaye seen yitte ju kawe ji leen Sëñ Tuubaa doon woo ca lañ ko wuyu ba ko suñ borom joxee ndigal ca Mbàkke Kajoor ni ko rabbi asxaabaka bil himma fekkoon na ñuy jaamu yàlla fekkoon na ñuy jàngaar xuraan waaye yitte ja moo taxul woon mu kawe ca yitte jooje ca leen Sëñ Tuubaa woo ñu wuyu ko ci ba tax fu delluwuñ gannaaw ndax ak taalibe bi weesul jaayante doo xaaj ci diggante doo wor di ko niru nirulu di ko waxee di ko doxe waxtu wu ci nekk te coo ci rek la mag ñu ne woon ndax gànnaar googu dañuy wax ni toll na jamono boo xamante ni ni benn saaku pepp bu xonq moo fa ne sëñ bi tisbaar lay génn te ku ne ab ngëpp nga cay am boo ko amaatee waxtu waa dellusiwaat ci ëllëg sa te taxut mag ñi dellu gannaaw te wóor na ma ni booba barab yañ bàyyi ko moo dàq foofa ci wàllu dundin lu doomu aadama di mos di ko dóol ci moom waaye bu dee ci wàllu roo nag foofaa gën ci ñoom ndax koo ke fa fekk amul faneen kooku rek la koo xamante ne nii fa fa mu toll suñu borom kenn tollu fa loola nag moo dàq ci ñoom loola nag la leen ko may mooy seen i bakkan lañu ren di xonte ko seeni roo moo tax seen coono jëfandiku ci wàllu luy dundal seen yaram loolu yégatuñ waaye teewul ñu nekk fa ak moom ci jafe-jafe yooyu te booba it sëñ bi lu nekk koy dikkal waaye lu ñëw mu jox ko naari gànnaar yi lu nekk koy dikkal am na bis bis sax sëñ Modou Matar Mbay wax ko ni ko man de jaaxal nga ma sëñ Tuubaa ni waaw mu wax ko ñett yoon sëñ bi ni ko ci lu ma la jaaxale mu ni ko ku dem ku dem ci réew ma boo demee kër Sidi Sidi Gaawaan ko ma nga mel ni tabaski dara du jeex mu ni ko am mu ni ko boo demee kër Ceerno Birahim këram gaa dàq tabaski dara jeexu fa ba ci Ibra Fall sa jàmb boo demee këram nga ma nga mel ni tulleeg mal fenn fu ci nekk xéwali kese yow nga nekk ci tumuranke gi mu ni ko Modou Matar mu ni ko ñooñu ñëpp lañ am loxo su tuut see ko liggéey ne ko ku ci am lenn looy sikki sàkka rek ñu tàggoog moom ba pare nekk ci tumuranke googe kon barab la boo xamante ne nii am lu mu fa doon fàggu loo xamante ne nii doonut lu mënoon a ñàkk diggam ak boroomam ci ay cër yoo xamante ne nii ma nga fa te mu war koo jël taraay ba rek la la koy xamal mooy dañ am na ci mag ñi koo xam ne daa xëy di wax ñenn mag ñi nekkal ni leen tey ku fexe ba ma regg danaa faj sa aajo waaw ku mën a faj aajo ba pare regg jafe la Euh, da ngay xam ni euh, tar na te ñenn ca mag ñu ni ko tey moom faj aajo jafewu fi rek a fi jafe waaye faj aajo moom jafewu mooy ñoom ñëpp suñu borom doy na leen loolu it dama bëgg nit ñi xàmme ci cërub yàlla ak àdduna cërub yàlla ak àdduna ndax nit ñi fi mu doon nii barke ñu ngi koy natt ci ay mbubb di ko natt ci ay ay tabax ak yoota te barke néewul foofu bari na koo xamante ni yaa ngi koy séen mu wañ sa lool te fekk fam àgg ci boromam mënee su ko misaal loolu nag mat naa bàyyi xel bu baax a baax te loolu la suñ Tuubaa doon wut ci nit ñi waaye koomu àdduna mi moom taxul woon mu ànd ak ñoom Sëñ Musaa Ka wax na ko ne bu adduna ak xaalis taxul nuy jébbalu ne nu toppi morel tey jéggalu waaw morel morel ab comptoir la bu fi newoon muy ay tubaab yu bari xaalis mu ne bu fekkoon ak xaalis rek ñooñu la ñuy topp ba pare dëkk jéggalu mbal xarit mi bokkoon na ci ña woon nekk foofa ca tar-tar yooya euh, sëriñ bi dox seen digg ak àdduna wan leen yàlla ñu teel a sempi seen loxo ci àdduna waaye mu teel leen a nargan ci jaamu yàlla akub cër bu ëllëgee ba tax na mu leen daan wax ni na ngeen wàcc lal yi te sanc der yi te muñ nelaw yi ba dem ci biir bàmmeel yi su ngeen demee ci bàmmeel lu ngeen bëgg a tëdd da ko tëdd leen ab nga ca kanam da nga tëdd ba tëdd loo bëgguloon a tëdd mag ña bàyyi loola xel bu baax a baax ndax amuñu amuñu waxtu dallu amuñu wenn waxtu woo xamante ni nii seen xel dana nekk ci seen noflaay bakkan lu dul rek ni loolee ñu dëgmal muy ëllëg buñ fa demee kenn du leen fa te daañu fa bokk ci ñuy dimbale te loola rek la sëñ bi bëggoon ci ñoom bi sëñ bi jógee gànnaar it mu bokk ci ñi ànd ak moom ñëw ceen jolofit bokk na ci ña fa nekkoon doon fa wut ngërëmal yàlla ceeyeen tam noon la tare woon ndax tubaab yi ko fa yóbbu woon seen yitte moo doon tumurankeel ko ndax barab ba ba léegi neexut a nekk te jamono yooye ndox akub dund ak tàngoor wa fa nekk taxoon nañu jàpp ni kenn du ko fa fekk waaye mag ñi ànd loolu lépp muñ ko suñ tubaab daan wax ni xiif ba rasulullah sallallahu alayhi wa daan daj nga xam ni ñàkk lum lekk yi tax mu takk kaalaam yatt ay xeer di ko rof ci diggante kaala gi ak ndigg li ngir mën a dëgër ba mën a taxaw xiif bu ko raw maak saak njaboot foofii ci ceen jël yooyu yëpp ay taxawaay la yoo xamante ni nii daf nuy fàttali rek ni nun ak lu jamono neex neex war na topp suñu bakkan bam nuy tarxisloo war nañoo bàyyi xel ñooña ca loolee ñu doon wut ba tey jii loola rek lañ bëgg muy radiyallahu anhu wa radu anhu ngërëmal yàlla nag ay caaxaan mayewu ko ku la ko dig ci caaxaan dalay nax man nga ànd nag ku am ngërëmal yàlla mu jàppandal la ko lool nga defee ni lu yomb la fekk ka nga àndal moo la ko may ndax kilifa dana yóbbu nit ci daraja joo xamante ni nii wóor na ko ni ngóoram mënu ko faa yóbbu darajay boppam mënu ko faa yóbbu waaye am kilifaa ko fa yóbbu loolu lu am am solo la moo tax sëñ bi dafa daan wax ne bi xaddiril kaddi taksibul maali fa man talabal ola zahara layaali mu ne kemtalaayal sa coono ci nga amee ay cër ci suñu borom waaye nag am lu ko jiitu na baxtukum ala kaddin bada lii xablaan an ara ridan mu abada maa ngi leen di yëgal ni ngërëmal yàlla lii sax fi man laata ma koy am xaw na maa dee door ko am loolee nag képp ku jàpp ni ci caaxaan nga koy amee wala folklore wala lii nga xamante ne nii moo xew rajax rajax ji mayewut dara sëriñ bi moom mëneesu su koo nax loolu yi sëñ Moussa Ka wax ni mënee su koo nax ndax fu mu toll day tax loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax mag ci nag loolu lañ xamoon moo tax yamali ko woon ak dara yamali noonu ak bëggam ak dara ndax tolluwaayam ci boroomam mën na leen fàggul ci tiir bu gàtt loo xamante ne ni boo doon dox sa dund mën naa jeex te doo ci àgg ndax bi tey wal jës bi jooj yi muy wax ni moom la ko suñu borom defal moom it am na ci njabootam ñoo xamante ne ni foofa rekk la leen jaarale waaye diggante bañ am ngërëmal yàlla diggante la bu gàtt gàtt boo xamante ne ni ci coobaree suñu borom mu jaarale ko ci jëmm joojee sëriñ bi nag la mu mënoon tey la ko gën a mën mënu ko ba mu fi nekk tey mu tële ko waaye nun noo war a defarwaat fet diliwaat sunu laxasaay yokkaat sunuy jéego te jàkkalaat sunu toogaay loolu li sëñ Moussa Ka daan wax ni waa jile Moussa bul fàtte waaje fa Tuba moo la te faatu moo la tee yalwaane nga la muusaa bul fàtte Cheikh Bamba ci duniya bu la fàddoo nag saxal ca lam santaane nun sëñ bi raw na say bët mu ne bu la fàddoo nag saxal ndem raw na say bët mi ngi lay gis te daawuloo seetaan loolu mooy nun suñu yitte fi mu doon nii mooy xañtu bëgg Sëñ Tuubaa ñu teg ci suñ tànk waaye fi mu doon nii li ñuy góorgóorloo mooy Sëñ Tuubaa nangam Sëñ Tuubaa nangam Sëñ Tuubaa te yooyu ñuy wax yëpp benn weru ci ndax sëñ bi moom sunum xel mënu koo peeg ëpp na sunum xel moo tax mun mënu koo peeg kon jërut woon ñuy sonn ci yoo xamante ne nii amaluñu njariñ te moom gën nu ko xam boppam te moom lim nu wax buñ ca doy jàppee. mooy ëpp njariñ ci ñun abdullahi wa xadimi rasul moom la tuddee boppam bi yàlla di liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola waroon naa doy sëkk ci ñun ñuy jéem a xam la leen lu jàll loola moo tax toujours dañuy wax ni mbubb yi ñu ko daggal yëpp daa cëkk benn jotu ko ci mooy ñi ñi ñi ñuy wax naan la ci lab daal yi la bokk ak naan xaw sa la ñoo ñëpp kenn xamu ko ci kenn ku ci ne da ngay dàkk la gën a kawe ci sam xel nga tudde ko ñenn ci des naan kenn xamul lu mu doon waaw xaaba an maqami siwal baaxil xadim loolu nag dangay misaal léeg-léeg ma leen aw teeñ ko kon yàlla bind na lu gën a rëy bopp mun la déedéet ndax moom ci bopp lay dund ba xëy faatu du ko wàcc jàpp na ni bopp a gën a rëy ci àdduna noonu la sëñ Tuubaa mel ñun suñu xel dafa dafa lapp ci biir sëriñ bi mun ñu koo peeg ci genn wet loolu nag war na noo soññ bu baax a baax ci jaamu yàlla te xam ne sunu bopp lañ koy defal sëriñ bi moom wàccoon na ak ñun ndax teg nañu ci yoon woo xamante ni nii buñ ko wàccut daan àgg ci dëkk ba wala ku ci àggut des na la gàttandu waaye nag ku ko fa bàyyi nag nekk ca la neen lu la neex boo ëllëgee loo dajal da nga xam ni yaa ndax daana wax ni bu la yàlla dimbalee nga am nday ju bari mu soow te muur lewut bu la nàmpalee ba nga fer sëñ bi ne boo maqut suuf suñu borom mën na laa musal ci xiibon lam tuddee maq suuf nag nee na mooy ñu yar la teg la ci yoon nga jógee fooñ la doon yare dem topp sa bakkan ne la la neex te loolu nag bari na yaatu na fi mu toll nii bu baax a baax muy ne ci li la neex ba pare tudde sëñ bi topp sa bakkan pare tudde ko sëñ bi nekk ci ak caay-caay ba pare def ko ak jagle wala jàpp ni loo war a def la te ñi ko sañ ñemewuñ ko ñi ko sañ dëgg ñemewuñ ko loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax moo tax sëñ bi daan wax ni képp koo xam ne dees na lu tudd di ma tudd yaa xam loo mën a doon ci man te su nit jógoon di ma seet si su yemee ci yow du ma ko jaral ak si ndax saw melokaan mais doo jéggi siraat mu ko te looyowuñ ko maag yow loolu nag mat naa bàyyi xel bu baax a baax muy yenn jëf yu doye di ak yenn melokaan yu salte yi ak yenn euh, comportement yoo xamante ne ni day tax rek nit ñi li ñuy wax ci sëñ bi ñi di ko wax bari na ko yàpp kilifa te ci mbooloom nga jaare ba yàpp ko waaye sëñ Tuubaa moom yëpp lu wut lu ci genn wet genn wet rek koo xamante ne ni nit mën na caa jaar jam euh, ko baaraam wala nga sànni koy kàddu te muy dëgg amut ndax keroog bañ ko gisee ba biñ ko noppee gis te teggiwu tànkam ci suñu borom loolu sëñ Muntaxa wax ni moom danoo xëy rek gis kook boroomam ba ni mu delloo foofa rek la nekk zalaltu aabidan qadiman li rasul min aama aysasin ila aami rahil loolu la waxoon ne ba ba ngeen may noppee gis fii ma teg sama tànk duma ko teg foofee nag ku bëgg ànd ak moom foofa nga koy fekk foofe nga koy fekk ndax faaraxtu la wax iblisa wa jamii al mafasid tàggoon na ak iblis ak lépp loo xamante ne nii lu yàq la ma ne képp ku bokk lu bon ànd ak topp ci gannaawam nag yaa topp ci ma waaye sëñ bi ënt ak yow te boo koy woy du ndax àndu leen laa samtu rasulallahi la wax sallallahu alayhi wa sallam wa jamii al masali fu waay nekk di yëngu ci lu baax lu mu tuut tuut bu ko xeeb loolaay dem ndax suñu Moussa daana wax ni eh, lu baax lu mu tuuti tuuti def gaa gën bàyyi ga waaye ab safaan itam lu mu tuuti tuuti bàyyi gaa gën def ga loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu war a góor góorgóorlu bu baax a baax ci jéem a sellal suñuy jëmm te yokk suñu yitte te yokk suñu pëstëf suñu digg ak sëñ Tuubaa sëñ bi moom buñ ko rusutit war nañ ko ragal waaw ñaar yooyu man naa buñ ko rusut war nañ koo ragal bu baax a baax ndax fi ko suñ borom teg ak ni mu sellee ak fi ko gaa yu baax yi teg bu nu àndeek moom ba pare melu melokaan woo xamante ni ni ku gis ni accam loolu war na noo tiital war na noo war na noo jàjj bu baax a baax te bis yi loolu rek lay jariñ muy waxtaane dundug mag ñi fàttaliku seen yitt ju kawe ja ñu natt ca sunu jéego ya donte noonu ëpp jéego itam nu góorlu rek fa ñu tegoon ñu teg fa sunu tànk lañ ñu doon xoolloo ñu xool ko la nga xamante ne ni doxoon nañ suñu digganteek ak moom buñ ci àdduna ba wax mukk bañ dellu ci sëñ Matar Diop ci mu daan wax ne da ngeen mel ni fas wuñ takkale lonet nee eh, na fas wuñ ko takkalee lonet la yëngu ci wetam yoonam nekku ci fañ ko jëmale rek foofu la jëm te sëñ Tuubaa moom ci su boromam rek la nu woo ñu góorgóorlu bu baax a baax noo ngi jéggalu bu baax a baax ñaan suñu borom defal nu tawféex taysiir kilifa gi suñu borom yàggal ko fi bu baax a baax ba li mu yéene suñu borom defal ko ci lu kawee njortam te ñaani suñu borom àggale ko ci seen borom defal leen ca lu kawe njort defal nu ak njëggam yàlla def jàmm ci réew mi barkeb sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.